boo leen dégloo mooy lu dul tug diine ak lislaam amuñu ci yàq amuñu ci defar dëgg la de sëriñ Saliou de nañ leen jénn ci yii nga xamante ni yëfi kii la mmh. faral di wax mmh. taalibe day yem place taalibe dëgg la dafa am loo xam ne yoonu taalibe ne ci koo xam ne dañ lay ommat mmh. lépp looy wax na nga ko xam ndax dégg nga ma waaw ñun suñu sëriñ yi lañ yaakaar suñu kilifa yi lañ yaakaar gannaaw yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa kon suñ leen yaakaaree nit kenn du ko jiitati ko fa kastan moo mooy li ma la wax léegi ne la ab taalibe mhm. li nga xam ne moom la war a def mooy mhm. di toppi ndigal tey wat di tere mhm. luñ la tere nga bàyyi ko luñ la sant nga def ko te yàlla tax soo ko defee danga mucc fii da nga mucc fañ jëm ndax nit ki nag mënoo ko yaakaar fii ak fële ba pare bëgg koo yem mënul nekk ñun buñ buñ mënaloon suñu bopp lépp duñ jox suñu bopp kenn fii ak ku mën a doon ci àdduna am na loo xam ne mënuloo ko sa bopp nite la ko mënal ke la ko mënal nag jox ko cër ba nga ko war a jox ndax àllaaxira jën jëm fii ku ci yàlla topp ci say mbir say ayib say say mbiri bopp boo demee fee doo lay ndax dégg nga ba mm. waaye nit ku ni am na kuñ ko rusee yàlla suñ borom bi daa am ñum rus mm-hmm. yàlla suñ borom bi daa am ñum jox cër mm-hmm. yàlla suñ borom bi daa am ñoo xam ne da ne teg ca kaw ta ba ilay yumi diine du leen wàcc mm-hmm. te ñooñu mun nañ lu ne Seydina Ousmane loolu la wax dinaa ramm juróom-ñaar fukki junni yu góor xam ne sawara yaay ne ban makama la am ci sun borom ba tax mu waxe ko pourtant ci saabu yonent bi la bokkon oh. mu ne dana ramm juroom ñaar fukki junni goor yo xam sawara dalena leen yay ñu atte leen bay war leen yobbu sawara mu ramu leen koku da am ciir ci sun borom kon sun nit diine yi ak l'islam yi nañ xam dañu am ciir ci yalla sun borom ndax ni ñu mel yalla la yalla sun borom bi mo leen ko def yalla sun borom bi mo leen ko jox yalla sun borom bi mo leen teral te yalla bu la terale da ngay tedd ba abadan sëñ muntaha mbake mu ñu wax ba loolu fi am sëñ touba kii nga xam ne moo nekkal moo nekkal moom alaaji Malick Tiwaawoon mënuñu wax ba doonu foo xam maam alaaji Malick ndax kaddu moom alaaji Malick ci lay waxe ci lay jëfee kon nañ leen jox suñu kilifa yi cër bi ñu moom di leen ñaanal yàlla ci weer wii ñu nekk nii ñoom yàlla nañ ko fekk ay ati ati at ci barki yonenti yàlla Muhammad mbooleem nag mbooleem ñoo xam ne yaa ngi ci tarixe yi rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen fi kàttanal leen beneen bi ci topp li ma wax léegi nee naa ndaw ñi nañ dellu si waat seen ñii sànni xeer ak ñii yuuxu mm, ñii taalaat ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk boo sañoon tey yow fa ka ñuy xëccool yow lay doon nga jéem a doon président wala nga jéem a doon xalif général wala dara mm-hmm. bu la yàlla tànnee nag def la ngay doomu aadama ay ñaari góor jur la mm-hmm. nga judd ñetteel leen mm-hmm. xoolal noo leen terale xool noo liggéey jaamu yàlla mm-hmm. noo leen dimbale moo gën ngay sacrifier sa life mm-hmm. ci loo xam ne boo ci dee mm-hmm. wala nga gaañu wala nga loro ci ñi ci ñi ko ci jot a def yëpp dañoo perte ñàkk nañ seeni waajur ñàkk gisatuñ ku leen soutenir gisatuñ ku leen def dara ci loo xamante ni tey da ngeen ne ay carte moo ko lijjanti nañ delloo si xel yi ku ko amul nga dem wuti ko bu bis ba ñëwee ku nekk sa xol yaa ko moom la nga mën ci moom nga def ko waaye am na loo xamante ni baaxul ci réew réew mii nag képp ku ko bëgg a yàq mm-hmm. yaay fi yàqoo rek dëgg la mm-hmm. lu leer nañ laa leen wax mm-hmm. muy ndaw bu mun a doon ci àdduna nag ku bëgg yàq réew mi wala nga taal réew mi yow yaa ciy tàkk rek yaa ciy loru waaye réew mi du tàkk du suux àddunaam du tukki du tasaaroo coup d'état du fi am sëñ bi coup d'état du fi am déedéet ñu ñëw foofu noonu ñu gis coow li bëri lool si entre Ousmane Sonko xam nga daf ci am loo xam ne dama koy faral di wax dama bëgg àdduna yëpp bàyyi ma xel ci li may wax nii gis ngeen politique dafa xaw a doy waar diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang yëfu état la seen mbiri bopp la seen vie privée la dañuy faral di wax ne nag kilifa day yem place kilifa tey am na cadre boo xam ne su ma fa duggee man dinaa wax lu ma xamul ndax liiruma mesin itu dossier xaw ma seen paralel problème dégg rek laa ciy am te fekkee ma ci dara amu ci dara lu leer waaye daf ci am ko xamante nii am lu ko yàlla may waaye xamu ko mooy si kan Ousmane wala Mame Mbaye Niang moom muy Ousmane Sonko soo bëggee dégg-dëgg li ko yàlla may dëgg xamu yow lan nga gis si ay bagage Ousmane Sonko en tant que Mara en tant que gis en tant que le am na ci loo xam ne vie privée la ñi ma ci war a waxtaanal waxtaan naa ci ñoom. mais fii mooy Siweul Ko TV même sa mën nga kaa lancer ñoom ñu wala. Ah, dëgg la dëgg la dama ne. man yàlla dogal na réew mi léegi doonuma ci n'importe quelle personne. ñi ma ràññee bëri nañ ñi may bàyyi xel bari nañ. doonatuma koo xamante ni damay ñëw naan ay lii parce que day nuru ku wootee pour kii wala dara fekk nekkuma foofu man sama gox sama réew moo ma ñor. mais dama ne moom Ousmane xamul dëgg dëgg li ko yàlla defal mooy yàlla may na ko mbooloo mi nit ñi nangul nañ ko waaye politique dëgg da koo dese mën te li nga xam ne moom laa gis ci yoon wi nga xamante nii muy doxee nii tant que ñoom ñu ngi koy doxe ah néew ma duñ jël réew mi de waaye dana metti lool ci ñoom kon mujjanteelu Ousmane Sonko état bi itam bëri na ci noo xamante ni moom la ñu war a doxee bu baax a baax a baax am na loo xam ne daal bëgguma cee sori parce que mbiru mbiru secret la te waxu kilifa la. te wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne maa ngi wax ak ñoom. mais sëñ bi ku ko bëgg a jot tamit nan lay def. waaw ñun nag yàlla dafa dogal boo ñu bëggee jot da ngay jël suñu numéro yi muy 78 bi 264 94 81 ak 78 115 94 33. 78 459 41 19 ñetti numéro yi laa am mosuma changé numéro. sëñ bi day listixaar day seetal nit day joxe ay sunguf wala. waaw loolu nag ñi ma xam moom xam nañ ne <laughs> bagage yaa ngi ne ci roxu ba kooku moom wax dëgg yàlla. Mhm. yàlla dimbale nañu si ak ku mun a doon ci àdduna képp ku ñu woo. di nga dégg loolu mosul dégg sa àdduna te loolu yàlla suñu bi moo ko def ci ñun doonut loo xamante ne lu ñu lu kii fenn la yàlla moom la xool ba mu nekk ko def ko ci ñun léeg-léeg ma seetal nit ba mu yàgg kama booleeg moom muy xuloog moom ne ko waruma boole waruma booleeg sëriñ ba pare di ko wax li ne ci man mais loolu lépp mbiru yàlla la mais la lay xamal ne lu luñ koy wax luñ ma wax ci yow parce que dinaa la wax sa vie privée yoo xam ne yow ak yàlla yaa ko dund tuddal la ay tur ngay dégg sa bopp mu doon loo xamante ni doonul sax loo xam ne lu ñuy kii la wala dara parce que nit loo ko xam-xam mu gën laa xam boppam soo ko waxee li koy dal wax ko muy fanaanoo ak li muy génn ak li nga xam ne moo koy métti ak li nga xam ne moom lay dund ak li muy lijjanti lu ne si kanamam wax ko ba wax ko ci njabootam la leen di dal tuddal ko fa ay tur kooku yaakaar naa doonut loo xam ne lu ñuy làmbatu wala dara lu yàlla suñu borom bi def ci ñun la waaye doonut luñ dama wala dara parce que lu waay def mu sotti yàlla la neex ñu naan neex yàlla am na xari yàlla am dañu réer rek seen i bàyyi leen fi jiitu fop te dem nañ te kenn jëlu leen ku yàlla. kon yàlla rek moo fi nekk. mais yan yan sarax la euh, sénégalais wala kilifa yi ci réew mi war a génne pour ñu am Sénégal am jàmm aussi. dañu màggal yàlla suñu borom bi di jàng wàcce kaamili alxuraan yi bu baax tey gëstu daara yi alxuraan yi saraxu réew mi loolu kese la ay rey leen nag beeg sotti leen suukar seeg. saraxe leen mburu yéeg loolu yëpp dëkk bi réew mi réewum diina la réewum lislaam la nañu jàng alxuraan dem ci daara yi geesu leen dimbale sëriñu daara yi gis nga ni ñuy def école yi ni ñuy def école yi di leen jënd ci yenn yi nañ dem ci daara yi ñu doon kii parce que buñ jaaxlee nag ci daara yi la ñuy dem ku fi bàyyi ko ci daara yi ngay dem ku fi am loo soxla daara yi ngay dem jëli fa ñu ñëw jàngale kaamil kon xam nañ ne yàlla mooy njëkk mooy mujj dëgg mooy njëkk mooy mujj nañu gëstuwaat demaat ci daaree alxuraan yi xool liñ manqué bi dimbali leen defal ngeen ko jàngulu ay alxuraan ci réew mi wàcce fii kaamil dimbali sëriñu daara yi suñ ko defee yàlla suñ borom bi sëriñu daara yi di leen ñaanal tout tànk yi jàng alxuraan di ñaan ci réew mi wallaahi la azim réew mi dana bari jàmm waaye yii ñuy def nii ay dañ rey nag nañ saraxe giléem nañ saraxe nangam ay tappale rek la du dara coow lay indi ci réew mi rek mais deful dara mbir mi réewum diine réewum l'islam fu mam alaaji Malick teud Serigne Touba teud fa Baye Laay tëdd fa bu kunta Ndiassane teud fa bay ñess teug teud fa réew moomu mënul tak abadan ndax kenn ngi penku kenn ngi soow kenn ngi salum kenn ngi ganar kon ñom ñak nañ réew ce mot de la fin lam ngay tagal tàggatoo santaat yalla julli ci yonent bi di gërëm suñu waju di ñaanal itam comme nima ko waxee léegi kilifa diine yépp yalla defal leen jamm di ñaanal ñi nga xamante ñoo woote lii tey muy Modou Baye Fall ak ñi nga xam ñoo ne ci ginnaaw ñëpp lépp luñ mën ren yàlla nañ mën lu ko ëpp bu déwénee ci kàttanu yàlla ak Serigne di leen ñaanal ci barki yonent Muhammad asib allah li ci ëpp solo ah, am ci ñu ci war a danañ ci waxtaan bu danañ danañ lu ba réew mi am jàmm ndax réew mi jàmm rek la war am te ñi ci war a suñu waxtaan ak ñoom ci kàttanu yàlla ak yonent bi billahi la mu ngi lay sama xarit la. Ah mu ngi non <laughs> mom sama xarit la mu wax yalla mu suñu waxtan ci yenn yi. mom gan. waaw mom sama nit la nit ku bax la biñu xamanté yagut kan la Mom iliman la. Mhm. biñu xamanté yagut way wax deug yalla nit ku bax la ku am yëg-yëg ci doomu adama la. ko koy ñaanal yalla yalla ko yalla sàmm taxawu amin ba lepp lu bëgg ci àddunaam ak njabootam yalla defal ko ko barki alquran mais eh, li ma la mën a xamal mooy li nga xam ne moo war ci réew mi. Mhm. ci kattanu yàlla ak yonent bi ba réew mi am jàmm. ni ñu ci war a waxtaan dañuy waxtaan ak ñoom amul dara lu ciy sàkku ñun ndax jàmm ji rek lañ bëgg. te ci kattanu yàlla ak yonent bi ak mbaaxu Seydina Mouhamed sangum sang yi réew mi dana am jàmm incha allahu rabbi merci bu soobee yàlla jërëjëf.